allo bismillah. kooku. man la Magu xaar sa soo bi. Ah, mbaa yaa ngi ci jàmm. gën nañ déggante ça va noo def. yaa ngi ci jàmm. ça va ça va ça va très bien. bu fekkee damaa xool benn course mu bëggoon def fii nii rek ci marché bi mu bëggoon yóbbu ma. ah da nga bëgg a def ay course. ah man de taxi bi nag jotaguma ci de. xam naa buñ ma ko indilee rek incha allah waaw ma ñëw jël la. waaw baax na d'accord lay xaar kon. waaye tey sonn sonn sonn sonn rek. mais ça nag est-ce que xam nga ni koñ bi yaa ngi koy dérangé. bi am damal. jàppal damel am damel jàppal damel man loolu laa fa mu nekk nii moom wax dëgg fa neex yàlla bu doon à la moom euh. yaa nekk à la une dagaru baa duma def loolu père hmm? te loo ci xamul père hmm. waa boor boor bële hmm. yaa ngi leen rof tàngoor goo xamante ne euh. réunion watuñu defatuñ dara xamatuñu sax lu ñuy def père déggoo ma ne la bu fekkoon politique jëmm la politique bu doon jëm sa jëmm jii lay doon moom man lay yow sa jëb ni man mais père mm. affaire o vidéo mm. père keroog ñëw naa di waxtaan ak yow mm. nga may gëmloo nii mère Siré la mais gëm naa gëm gëmlu naa ko daal dem mais man xam naa ni per yow la non sax non sa xel la père man dama toog dama toog suma kër nii bu see mën ni ma ni mais kii kii nii hmm. kii di il faut ma saxal ko pexe te olof nee na màggetum alkaati du bàyyi dóore. te yow dóore doo ko bàyyi père. waaw oh, mais booy gisuma ko de ndax man bu may ñëw fii nii jaar naa père permanence ba. pour man sax man nga foon mais maire yi laa fa fekk ñuy def seen réunion yooyu noonu mais gisuma taala moom. ah taal dafa war ñëw. ah du def déclaration Eh, eh ni mu pousse pas ah. ah la yow war nga ma laajte lan moo ko lan moo la taal. ah yow vidéo bi nga def yow moom man nga man man ma laaj man bu yàgg naa leen lay man politique laay def am na yenn ñi nga xam ci man xajuma si yaa ngi nii léegi sa sama sama noon yor nañu vidéo bi rien pour ma déduire. waaw xaaral ma expliquer la du xam nga lan la sama téléphone dafa réer. léegi sûrement te amul code léegi xam naa ki ko for moo partagé a kan moo jox si vidéo yi. waaye ma la ma ma ne du wax li nga wax man mënuma ko gëm sa terre à terre loolu loolu lool. ah kon ko pour détourner la dama ko jëloon rek uniquement pour su ma la namee ma la ciy xool. mais boo ma namee nga woon ah boo ma namee nga woon wala nga def ma appel vidéo. lenn moom si lenn moom dinaa ko man mooy damay plainte man. plainte laay def. ah jugal jugal jugal. c'est sûr nga ne li nga def nii te te te teew c'est sûr. d'accord man. eh eh. eh looy def ñëw. ah man damay kii rek. eh waaw ba ngeen def su mel ni. man ni ngay def yow. non de question d'appel de man politique laay def bu bugguma ñu may xool ci yenn affaire yi ñu ma naan taalal lii lay def wala lii quand même ah. ah. la kii yambar la def. salaamaaleykum. salaamaaleykum. ah Amour. Ah, yaa ngi jàmm. na nga toog yi. alhamdulilah yaa ngi jàmm ah ñëw nga. yaa ngi jàmm ah papa. ah. ça va sant yàlla. ah waaw baax. baax. waaw daa waaw waaw. jërëjëf kon bu suba. incha allah ay dana nga def. ça bu jàlle la lu xew. journal te li yëpp amul ay sos rek la. waaw egsi egsi. kay toog. waaye defal ndànk ay de bul panique nii. góor war a lim bind yëpp si man. góor lii amul. bu lii du man lii ay ay wax la ay sos la rek waaw euh, gis de choses là nga demee sa sago dama laa bëgg nga bàyyiwaat sa xel ci benn mbir gis nga matière de politique boo ko seqeek ay baadoo la rawatina saay-saay les coups de partout buur man bu dee lii la man damay bàyyi de ndax sama vie de famille daf ciy daf ciy dugg buur. waaye déedéet ñoom loolu sama vie privée la. waaye ñoom loolu lañ ci bëgg di nga bàyyi. da nga leen ni won ni lii même bu la affecté nga won leen ni ça ne m'ébranle mais sama vie privée buur daf siy engagé. mais lii du dëgg. dañuy àndandoo guerre guerre bi wan leen ni lii ngeen di wax nii ay kàcc la parce que lii diffamation la te ki ko bind. foot bu garaaw la def. ñun xam nañu journal bi ki ko moom def na signature am turam a ngi ci. waaw na. Mhm. ay ca. buur bàyyi ma def plainte bi kon bàyyi ma porté ko plainte. déedéet nag yow ay defal ndànk plainte du solution. boo ko porté plainte ñu jël ko tëj ko ñaari weer ñett ci kaso bi fayloo ko amande cent cinquante mille. mu recommencé waat ñu mel nii seen xolal lëndëm da fexe ba récupérer leen. toog ak ñoom ñu wax la lan lañ ci jublu ak ku leen ko dofloo nga dimbaliwaat leen ci àddina bàyyil noonu et puis bu la kenn dérangé ak bu la kenn découragé ah, te dangaa sañse sax buur xew naa demoon fa lañ ma joxee journal bi waaye déet bu mu la perturbé yow ñi lay xam-xam nañu la ba pare bàyyi maag journal waaw baax na du kon ay kër bi jërëjëf baax na ay dara bul perturbé wul de waaw wan leen ni tey laa gën a taxaw Talla Talla. Eh. Talla Talla mais mais yow mais yow lan la. kon yow dégg nga dégg dégg naa kon li nga def kon yow yaa tey. Ah, da nga ma da nga da nga ma sonal saa yu ma ñëw si kër gi ñu ne ma ñëw na ñëw na mais lan la. Talla man maa la gën a sonn ci wër bu mu lay wër. Talla man instant bi war na fekk may dox yeneen mais saa yu ma xëyee di la wër pour yow loolu man daf ma neex. yow paa bi la la wax néew la saa yoo xëyee nga ñëw fa nga toog am na foo xamante ne boo fa tollee dañuy ngay négocier fii laa toog ne man du ma sonnoon sa waay am na nu muy demee bu fekkoon fii say sonnoon la dama ciy xëpp kaane affaire yi tas foo romb ñu lay joxoñ mais defuma ko dama toog appuyer ne nañ waxtaan. léegi léegi alors jeune homme na def mbaa ci jàmm alhamdulilah. xam woon. du yàgg du yàgg. Ah. du yàgg waaw. waaw man de euh, kër gi ma joxoon. waaw euh, man de dafa am tuuti jafe-jafe daal yu mu fa am. kër si waaw xam nga man bi may ñëw dama la waxoon ne dama bëggoon kër goo xamante ne daal dëkkuwaay bi dina calme. ndax man professeur laa damay xëy di liggéey. waaw waaye nag wax dëgg yàlla fi ma nekk moom lii aw ma loolu moom aw ma ko. ndax damay tëdd guddi gi waaye xale yi sama buntu parterre bi nañuy ne wax ji ataaya gi xuloo bay xeex bi jàng yi man daal doy na daal léegi nag li ma gën a métti mooy dama dem ci Soubeyrou pour récupérer sama caution pour dem waaye tuuti ñu jàppante fa sax wax dëgg yàlla te loolu mën gënalu ma daal loolu moom mënul ànd ak tranquillité je l'avoue mais xam nga qu'est-ce qu'on va faire jeune homme yooyu yëpp dina jeex ci quartier ndax ñu ngi jëm ci ay élection chef de quartier nii ay de mii la ñu jiital sama jigéen la ngir mu diriger quartier gis nga bu ñu jëlee quartier beeg jàmm te xam naa ne à quatre-vingt-dix-neuf pour cent dinañ ko jël yooyu yëpp ça va changer ndax dinañu dem police waxtaan ak moom quartier bi nit ñi dañ fay soxla tranquillité balaa kenn di bâchati bind autorisation ñaan nit ñi ñu juboo ci balaa kenn di tàntati ñu juboo ci saa yu neexee waaye yuuxu saa yu neexee waaye tëgg sabaram du yoon nit ñi aussi dañu am ñu feebar am soxla tranquillité may ma rek tuuti dégg nga merci léegi li nga wax si wàllum élection yi waaw man ñor na ma loolu waaw comme man daal professeur laa xaw ma nag ndax yéen jot ngeen def seen groupement ba pare waaye dama bëggoon daal nga boole ma si soxla nañu ñëpp mm. ku sa xel sell daal soxla nañu léegi daal loolu si soxla daal man woom incha allah da ngay dem nii waaw damay gont. waaw baax na léegi man dafa am ay moo yu ma waroon defi. waaw xam naa mën nga ma yóbbaale rek. waaw incha allah xam nga dama la waxoon chaque jour boo yow na nga dem permanence. ah waxuma la lool. ah wax nga ma lool rek. waaw man dafa mel ni dellusiwaat ñëw sa kër baay bi nga ñëw moo la neexul mais xam nga xam nga da nga war a def déclaration. Mm-hmm. déclaration. waaw. waaw ah, mais loolu dama dama dama jaral déclaration kañ. comme ñëw comme ñëw naa si yow kañ. ko jarul déclaration loolu daa wóor. ko war a fësal. doo fësal déclaration. am na loo xam ne waroo toog sax di xaar mu la koy wax yaw yaa ci war a dem jug dem dox sa tànk pour def ko loolu mooy yoon. ñun si moo ko neexul. ngay woo Fall mu ñëw fii. damay woo Fall. léegi léegi léegi léegi léegi léegi waaw. yore lay xaar ah. waaw waaw waaw d'accord merci merci ñëw léegi waa li mu ñëw kon baax na kon léegi bu ñu ko xaar ñooñu tekkiwuñ dara gëmuñu yàlla ñooñu gëmuñ dara kese ba pare nga ne nag père ku baax la nga yëkkati père lépp loo xam ci lu moom lu baax nga wax ko boo ci xamul woon sax kereyel teg ci ñëbbisi naa sama kër bàyyi le vieux. Ba Fall lay def. ça va sant alhamdulilah ah. waaw waaw waaw bi may woo boobu dama nekkoon. Euh, si rédaction voilà rédaction moo tax. ah oui c'est vrai maa ngi jégalu bu baax a baax. mais kontaan kontaan yow Fall kontaan merci beaucoup xam nga kii. Uh-huh. war a del déclaration bi. pour wane ni moom ni ko bàyyi. di kii. Mm-hmm. man la war a parce que papaam ak suma papa la maamam ak suma maam ah, man ak moom Fall kii mook père ñoo doon ànd ànd ànd bu yàgg après mu transhumé dem ci daan léegi nag dafa transhumé waat dellu si waat ci père loolu dafa mu ko mais loolu kay jarul yàggal sax. mën na nekk léegi léegi nii. waaw waaw mën na nekk mën na nekk mën na nekk. mën naa ko def écrit mën naa ko def euh, audio wala. vidéo vidéo vidéo. waaw. lan vidéo lan. Ah, a problème parce que vidéo bi. Mm-hmm. nii nii nii nii mais mënul mënul mënul nekk. lu li ma sol ni quand waaw li nga sol daala la. non non lenn mooy mën a am man ak moom ñu ànd sama kër. ànd leen ma sama ma sama sans sans sans mën def vidéo bi. ah kon yow booy def déclaration transhumance da ngaa war a sañse. mais damay dem ba sama kër changé mën def. Euh, vidéo bi dëgg la dëgg la yow. da ngaa respecté li nga non non mais loolu loolu garaaw. kon dem nañ waaw waaw mën nañ dem. waaw c'est bien c'est bien. Ah, man dama laa gëj a dégg ah man de da nga maa bàyyi.

sama xarit la waaye tamit far bi dafa doy waar. mooy siire ah. waaw. mooy siire. waaw. Ah. ah man de nama naa te doo jékki-jékki sax woo ma laaj ma ndax am naa course. waaye bàyyi gis mi laa yëtte yi rek màggat adduna bi da ngay daw a daw a daw a daw a daw bay bëgg dee rek da daw a daw ba sonn rek. bëggoon yegg ci kër ga. Ah. waaw nga ñëw ñu naan ataaya foofu. Ah, waaw baax na mën naa nekk waaye. dinaa wut jot rek bu ma amee jot fan yi dinaa fa ñëw. Hmm. waaw. dinaa ko ñëw naan si ataaya. kon baax na soo leen dinaa la xaar baax Euh, pour te pour parce que j'ai beaucoup réfléchi bi vraiment mën na mën ma ko def quoi. mënoo ko def c'est-à-dire mën ma parce que eh, xam nga vidéo bi man mën ma ko def sincèrement waaw parce que euh, sama jeune daal sama sama sama jeune loolu. kon yow da nga am problème mu def interview bi en image. image si boppam image image moo doy moo doy moo doy waat xam nga fu ne lay dem. waaw loolu moo tax ma ne la vraiment moom pour def vidéo bi moo sans ma sans sans ma sans ma mais lan moo waral loolu. parce que xam nga tous ces leviers là. Mhm. man ak man ak moom dañoo yàgg. mais dem ba si biir ma ma xam ne kii vraiment c'est pas bon chef de quartier. mu a ma la ma koy bàyyi mais loolu la rek mais dem ba si biir nag bon ya ca ak seen pexe tu as vu waaw donc vraiment daal vidéo bi jàkkaarloo vidéo bi nii jàkkaarloo ko waa kon bi ñu ñu xool vidéo bi ne jóge naa fi delluwaat ci moom mais kooku ma bon xam nga man ci service commandé laa nekk mhm. paa bi li mu may def loo nii fi koy wax c'était devant toi. kon man li mu wax rek loolu laa mën a def mhm. mais nag yow boo demee ba ne ma mënoo def image bi euh, euh, euh, interview bi en image. Mhm. léegi yow qu'est-ce que léegi man su ma sañoon. Mhm. dañuy bàyyi bi mais nga bind nga bind. ma bind. waaw ñu bàyyi ma bind. Hmm? bind dafa am lu mu laaj am lu mu àndal yow léegi looy proposé. Eh, voilà tu sais hmm. man fu ma nekk nii dama am benn. suñ financement bi nga xamante ni moom moom moom moom lay xaar. waaw waaw fii ak deux semaines. waaw fii ak deux semaines moom c'est sûr que ni naaw jot euh, financement bi léegi bu ñëwee waaw mu la jox kooku moom y'a pas souci. xam nga soo gisee ma laaj la lii. Hmm. bind xel a koy def. Hmm. su ma naree toog di xalaat di réfléchir pour lan laay bind. Hmm. ba pare kër gi ma dëkk. bailleur bi di ma sonal. sama boutiquier di ma sonal. foofu pour ma bind day jafe. moo tax ma laaj la lii ma la laaj mais man bokkuma ak journaliste yi nga xamante ne dañuy dem di jël xas jàmbur te gars yi sax boo gisee ñuy def loolu aussi problème yi même nii ah moo tax. non man man moom je te comprends mais li ma la wax nii y a pas souci waaw les dossiers sont la waaw parce que bii mooy euh, deux deuxième phase. kon dossier bi dina jàll. non y' a t'inquiète y' a pas problème moom moom. loolu moom amul problème tu es mon frère y' a pas souci. ok amul voilà léegi man sama souci mooy. Euh, mhm. yow naka ngay def ak le vieux là. pour le loolu t'inquiète ko gérer. Ah man ak moom au sachet xamante nañ. naa ko jox essentiel yow. gérer le premier phase bi rek kooku kooku moom du ñu boole y' a pas y' a merci beaucoup a pas souci merci. merci ah. allez à bientôt. ok ok merci. mais n'oublie pas a pas souci. y' a la nga def. Talla la da ngaa réer. réer déedéet déedéet ma yow yaa yaa ma tax a man nii. waaw. waaw deux chaises. waaw yow it naka laa fi ñëw yow nga naan ndax dama dama réer. waaw yow kër gi dëgg dëgg mu mës teg teg sa tànk. fii soo fee teg sa tànk di yow ci bunt kër gi ngay romb suba la woo dooma sax faale tey boo fi ñëwee duma la laaj loo fi wut ndax xam da ngaa réer. waaw li li nga moom dëgg moom. waaw li ma ma si jéego bu baax. waaw man nag euh, dama dama ñëwoon euh, waxtaan ak yow daal. waaw ngir nga nga nga nekk intermédiaire euh, sama sama diggante ak damay. waaw parce que xam nga Damel euh, yor na bi nga xam bi nga xamante ni war ko yor ndax euh, sama image moom la yor. Mhm. te te te loolu amul benn droit yor sama image te neexuma man nii. Mhm. te li li mu dem nii mën naa ko ci porte plainte. loolu loolu tax nag ma comme comme yow yaay porte problème. Mhm. di bras droit déggal na la. ma bëggoon daal nga. ñu waxtaan ak moom mu bàyyi daal euh, mbir mi mu mu mu sedd daal comme ni ñu koy faral di wax. gis nga wàllum plainte boobu bu yeboo na nga ko teg ci suuf. Eh, lan li nga def mërs la. tey jii boo demee di porté ji dañ lay laaj vidéo sa preuve preuve anam boobaa vidéo foo koy jëlee. mais euh, na na naka politique bi. jarul li lii. kon yow affaire san sentiment nga bëgg nga bëgg a dugg nii ak paa bi paa bi gëmul sentiment de paa politicien dëgg la muy politicien yu njëkk yi dëgg nga xam ne set yoon nekku ci buñ la mënee écraser dañ lay écraser te duñ ci seet dara kooku mooy paa bi te yow gënuma laa xam yow père Damel yow. man man daal li mu bëgg daal mooy nga waxtaan a moom daal ndax man moom ce qui est sûr mooy lii moom bu weesoo. politique dama koy bàyyi complètement taala gis nga sama wax jàngi gisante wuñu woon maak yow ma ne la taala politique du métier politique du métier léegi yow boo bàyyi politique looy def non man man yow naa samay affaire yi nga xamante ap moom naa ko lijjanti man après waaw mais mais yow yow <laughs> ah, ne man pôle politique laay def. de. man facilitateur laa. facilitateur ah mais yow yaa ngi am sa problème ci kan nga ñëw du ci man niñ nga koy defee noonu la ko ñu bëree bëri say morom di ko defee man laaleew ma daray politique man facilitateur la d'accord man man man daal li mu bëgg daal mooy nga taxawul daal ci mbir mi daal. taal loolu yomb naa lijjanti père. Hmm. day waajal campagne. Hmm. kon donc kii di campagne wax fond. Hmm. n'est-ce te yow fan yële passé mm. encaissé nga xaalis gu bëri ah. financement financé nañ la fan yële passé waaw yow naka naka nga naka nga def ba xam ba xam ba xam loolu naka yow <laughs> eh, tamit taal la man facilitateur laa di dëkk ci quartier gi lu fiy dugg lu fiy génn lépp laa maîtriser lépp laa xam léegi xaalis boobu ngay jël teg ko sama loxo ma dem jox ko père na ko père taala moo la ko dimbalee ci campagne bi léegi boo ko joxee nag dina kontaan boobaa mu supprimer vidéo bi. man moom nu vidéo bi ki ki ki weer euh, moom intéressé daal. waaw ah, jeex na soo ci paree rek ni nga def ba ñëw. Hmm. nga defaat noonu ba ñëw rek fekkaat ma fi amul problème. waaw baax na. mun nga dem Talla mun nga dem mun nga dem. Ah. mun nga dem mun nga dem. mun naa dem dama dama dama dama dama. waaw maa ngi dem. gisagoo dara sax yow xaaral. jox ma sa diis bi rek.